asalaamaaleykum internet yu seen teranga TV amati mbégte ak contentement bu baax a baax daal di ànd ak yéen comme nañu koy defee tous les jours daal di invité ñoo xamante ne nii dañu am ay jafe-jafe ñeel li nga xamante ne nag moom moo di suñu njiitu boo bokk moomeeli wala am jafe-jafe ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo di bailleurs yi fii lañ koy ñëw jooysee ci seen émission bi nga xamante ne nii moom moo di seen teranga seen teranga nag daal di ibbil buntam ñëpp moo xam commerçant bi moo xam marchand ambulant bi moo xam ka toog ca bureau ba di liggéey ngir jafe-jafe yoo xamante ne ni am nañ ko ñu ànd ci ak yéen ngeen wane ko wax ko fésal ko mu àgg ca nopp autorité yi nga xamante ne nii ñoom ñoo ko war a saafara nege ni tey nag ci noonu ci lañ daal di dalalee ñi nga xamante ne nii ay commerçant lañu fekk baax fële nga xamante ne nii moom moo di ca centre commercial Soxna Waalo Mbàkke bu ñu ko waxee nag mu nga nekk ca diwaanuk Padoua Padoua ku ko wax ne jiitu bokk moomeel boobee di may mun a jéey tey kontante daal di fiy dalal ki nga xamante ni di Jibi Diagne nekk ab commerçant ak kii di Kabou Mbaye di naataangoom nekk ab commerçant foofee loo xamante ne dox na seenu diggante ñoom ak benn promoteur ba nga xamante ne nag moo leen digoon ne centre commercial boobee ab supermarché duñ ko fa tijji ab banque la ñuy daal di tijji ci devanture bi def fa ab restaurant dem ba ca biir daal war ay kàddoom kàddu yi leeral la ñu fas yéenee àndee ak ñoom ña ngeen ni tey Jibi Diagne maa ngi lay nuyu di la ziyaar. Sénégal yëpp. Mhm. Teranga TV. Mhm. nuyu membre yi fi nekk yëpp wax dëgg yàlla di am kontaan bu baax a baax. Mhm. dalal dinañu dalal fii tey. ñu yaakaar tey lépp ñu fi wax lay doon. ci ñi wax ni ñu ngi ñaan yàlla lépp saafara fii. parce que tamit jàmm rek la ñuy woote. ci jàmm rek ñu bëgg. incha mais dafa am lu ñuy metti loo xam ne foog ñu wax ko. parce que tamit aussi jaay doole dafa day mel ne waxoon nañ ci dëkk bi jeex na. nag loolu xam naa ci kanam ñu gën a yaatal quoi. incha allah rabbi ci kanam tuuti la koy daal di yaatal ma nuyu la Kabou Mbaye ziar la nuyu mboolem commerçant boo xamante ni mu ngi lay suivre tamit bàyyi la nga nuyoo ak internet yi. Binta maa ngi lay fay di la ziar baax a baax di baalu àq ñëpp di baalu àq ñëpp ñaan suñu kàddu yi yàlla na nekk kàddu yi jàmm di ko dégg it yàlla na nekk lu am solo daal lépp lu ñuy jooy it yàlla na ci yàlla def. sutura ba li ñu bëgg daal ñu am ko incha allah rabbi yàlla incha allah rabbi tey ji bi da ngeen a am coow foofu nga xamante moom moo di ca centre commercial ba comme na ma ko ah, promoteur bi nga xamante jamono ji ay réeroo am na ci seenu biir mën nañ kaa tuddee réeroo mën nañ kaa tuddee ab jaay doole ndax lam leen waxoon defu ko daf kaa ñëw teegi def ko leneen lan moo xew lan mooy problème bi euh, binta dañ euh, dañu commencé woon benn suñu marché bi dafa demoon ba di waaj daanu après ñu ni léegi comme daa marché day waaj daanu ñun commerçant ñu ne léegi dañuy daaneel marché bi. Mhm. waxal ci micro bi nga xool caméra bi. ñun de ma ne euh, dañu amoon suñu marché dafa demoon ba di waa jaam. waaw màgget ba di waa jaam. Mhm. léegi ñun ñëpp ci commerçant ñu waxtaan suñu biir ñu ne léegi dañuy bi. léegi bu ñu ko daaneelee dañuy wut bi ñuy jot indi nañu promoteur yu bëri nag. Mhm. ñu waxtaan ak ñu bëri. ñu maire bi nag. mu ne da ngeen da ngeen dañu daan tànn promoteur bu baax boo xam ne dina mën tabax marché bu mu egg. ñu tànn ci tudd Ibrahima Diop. ñu jubóog moom ci ay kàddu mu ndil ñu plan boo xam ne tey jii macha allah bu rafet ñu d'accord ci moom ne plan bi bu ñu ko bu ñu nee plan bi gis nañu banque day am ci suuf. Mhm. ci kaw day am restaurant. Mhm. ba ñu tabax marché ba marché bi egg ñu dugg nekk ci marché bi nekk ci marché bi benn moment ñu gis ni li mu waxoon ci banque bi defu ko permanence la fa bëgg bi ñu ne ah bu muy tabax ñu ngi koy gis muy tabax mais xamuñu woon dañuy yaakaar ne banque bi lay wax ko banque la waxante woon ak ñun ñu yaakaar ne banque lay def mhm. ñu toog ba benn moment ñu gis muy ñuy ñuy essayer sérieux ñu ne banque moom daa am sérieux am mhm. ñu ne lii nekk banque xam naa sérieux leneen lay doon ñu dem laajte wuti information ñu ne ah lii de supermarché lañ koy def ñun tam ñun sol suñu daal la dem fi ñu war a dem mhm. dem nañ seeti maire avant ngeen a dem seeti ji maire moom promoteur bi ci jëmmi boppam di Ibrahima Diop est-ce woo ngeen ko téléphone laaj ko li nga xamante ne moom ngeen fa gis lan moo ko waral. ñoo wax dëgg yàlla man loolu ah ma ci toon parce que ama ci mhm. li ma leer. mais daal li ma li ma li ma leer mooy. ñun dem nañ seeti maire seet nañu préfet seet nañu chef de quartier seet nañu imam. ba ngeen demee seeti ji le maire Maimouna Dièye mooy seen maire ba ngeen demee seeti ji ko lan la teg seen loxo. a Dièye bi ñu demee seeti ko euh, mu recevoir ñu ñu toog waxtaan ak moom. mu ni ñu li mu li ma li mu wax mooy kenn ku nekk sa wërsëg mhm. loolu la ñu wax après mu ni léegi daal comme nii la demee naa ngi woo promoteur bi dafa nekk umra maa ngi woo jotuma ko mais su ma ko jotee dinaa waxtaan ak moom mais travaux yi dañ ko arrêté en attendant bu ko defee ñu mën a toog waxtaan mhm. ah? travaux yi arrêté na travaux yi arrêté na travaux yi ba léegi nii bu ma jógee fii léegi ñu ngi koy ñu ngi ñu ngi mën seen ay affaire mhm. indi seen bagage dugal ci biir mais comme daf ñu waxoon loolu ñu toog ba yàgg gis ñu gis ñu réaction bi deful dara ñu tamit ñu connaît suñu xeex parce que tamit aussi. Mhm. am na loo xam ne moom lu nekk ci ay kayit moom nekkul lu ñuy làmbatu. ñu mhm. nekk ñu di làmbatu. Mhm. dañuy fii xam fi ñu teg ñu tànk parce que comme lu newoon ci ay kayit la. dara dindeegu ko togg ñu waxtaan ni lii dañ koy dindi kon kenn warul def jalgati yoon. yaa yaakaar naa yoon am na ci dëkk bi. kenn warta jalgati yoon mu daal di nekk kàddu yoo xamante ni kàddu yu dëgg la Kabou mbay tey mbir mi jaay doole la wala da ngeen a waxante woon ni centre commercial boobee dina am li nga xamante ne moom moo di ab supermarché ba tey ñu daal di leen ko fay indil. salaamaaleykum wa rahmatullah mbir mi man ni ma ko gisee jaay doole la. ndax marché bi biñ koy commencé. dañuy toog. la délégué euh, la euh, maire. ak conseil maire ak euh, suñ délégué yi. dañoo toog ak promoteur ñu waxtaan. mu ne dama leen ay tabaxal marché bi. mu am banque. am resto ci kaw. ñu ne banque bi de. baax na sax ndax dañuy dimbale ñun commerçant yi. Mm-hmm. ñu d'accord ba signé ko ci kayit. Mm-hmm. bi ñu defee noonu. Mm-hmm. ah mu tabax marché bi. bi ñu dugg sax amaana booba. Banna Diop moo fi nekk. waaye bi ñu dugg dafa fekk bi ñu nekkoon délai biñ fa amoon jeex na ñu profité ñi ñu dugg mhm. bi ñu duggee ci biir ñi continuer liggéey bi ñu continuer liggéey nekk ak moom nekk ak moom di liggéey ba mu yàgg temps yi ci ginnaaw ñi gis ñi commencé travaux banque bi ñépp defe ne banque lañuy ñuy defar mhm. yàlla def na man maag jibi sax gëstu yi ñu ci def ñun ñoo ko sant na def. yéen def ko ñoo ko ci def biñ ko ci defee ñu ne du banque supermarché la ñuy def ma dog dem ba suñ délégué ma ne ko ah ndax suñ banque bi yaa ngi ci gëstu mu ne ma banque bi ñu ngi koy defar ma ne ko du banque de supermarché la ñuy def moom keroog dafa tiit ba daanu. Ah. amutoon lu ko ump ci Ibrahima Diop. Mm-hmm. dafa tiit na ma kon nag nañ jog a ah, jëndoo na jog dem préfet bi ñu demee préfet génneel ñi dossier yëpp nañu supermarché amul ci marché banque moo fi am mhm. bëri na su préfet bëri na technicien yu mu woo suñu kanam ñëpp dañ ne ko supermarché waru fa am ndax supermarché ak marché war na mat huit cent mètres cent à huit cent mètres techniciens yi ko woo yëpp loolu lañ loolu lañ ko wax. préfet bindal ñi kayit nañu yóbbu leen ko gouverneur. dem nañ yóbbu ko fa ajjuma. turu ajjuma la tombeel dem nañ seeti imam. dem nañ seeti euh, euh, délégué kii bi. marché bi délégué euh, kii. chef de quartier Padoa bi dem nañ seeti ko. Mhm. turu ajjuma boobu lañu may mun a jéey recevoir. Mhm. bi ñu demee. mu ne dinaa woo Ibrahima Diop ba mu yàgg sax mu ne woo naa ko jotuma ko waaye dafa nekk umra mhm. mu ne waaye léegi bu ñëwee dañ waxtaan waaye dinaa arrêté travaux bi mu ne dinaa arrêté travaux yi ba mu yàgg sax mu ne waaye de commerce ku ne wërsëgam amaana sax mën nañuy waxtaan ak waa ji bu ubbee mu jaay li bañ a jaay li ñun commerçant yi loolu dalul suñu xel ndax man mënuma ubbi sama barab di fa jaay nga ne ma lii ngay jaay doo jaay lii mhm. ñun nag ñi jàpp ne may mun a jëy lam ca waroon a def defut ko nam ca waroon a taxawee taxawewut ko mhm. ñun liñ jàpp mooy dañuy seetaan mhm. ndax su fekkee ñun ay njobootam lañ nekk ci goxam di liggéey ak lu mu doon bu amee rek moom war na mën a am taxawaay boo xamante ni ndey ju seex lay nekkee waaye dafa mel ni nekkewul ndey ju seex Mm-hmm. ci suñ gis-gis ñun commerçant yi. Mm-hmm. tey lan di sàkku. daal li ñuy sàkku mooy. ñun daal ku ñu dimbale. ba lii jógee fi. lam ñu waxoon mu nekk ci këyit yi ñu def ko ci muy bànk mm-hmm. ñun loolu lañ bëgg. d'accord mu daal di nekk message bu fort boo xamante ne actuellement les commerçants moom la ñu lancé muy banque la ñu soxla parce que nag ñu mën a am li nga xamante ne nii moom moo di accès au financement commerçant danga koy defal li nga xamante ne nii moom mooy yokk gafagaam waaye doo ko indil loo xamante ne da koy lor indil ko loo xamante ne tey jii nii njaayam ak jëndam dina am ab euh, ralentir boo xamante ne danañ ko ci am waxtu boobee nag la mairesse di may mun a Dièye yow yaay njiitu bokk moomeel bu Patte d'Oie yow yaay premier magistrat bi nga xamante ne yow yaa war a taxaw le temps ñu daal di régler li nga xamante ne nii moom moo di problème bi wax nga ko sànq ci say biiri wax supermarché fa muy am warta ñëw ba ci biir marché wala ca bunt ba mu daal di ko fay am dafa am ay normes yoo xamante ne nii moo leen régir dina am 500 à 800 mètres yoo xamante ne nii dina dox ci seenub diggante ngir ñu mën a amal boobule supermarché mais ji bi damay ñëwaat ak yow ci problème mu marché bi. Mm-hmm. parce que marché bi dafa mel ni lii ngeen di jooy rek du problème bi. am ngeen fa li nga xamante ne ni moom moo di problème mu courant su ma juumul. mbir mi nan la demee. lii lii parce que marché bi dañ koy tabax dañ koy tabax ba pare ñu war a installé courant bi ba ñu installé courant ba pare dañoo dañuy gis ni fii lii ñu fa def. Mhm. nekkul fii di foroon nekk. fii li ñu dugal ci biir marché bi nekkul fii di foro nekk parce que war a am fii di mag yoo xam ne ñu war nekk ci marché

pour mu tijji kon lan moo leen fa dugal. force ñuy dugal ñu parce que dafa ñëw benn ñu koy wax man mi amoon gànte dama ñëw ni mu ni ma da ngeen dugg da neexee da ngeen dugg leen naqaree da ngeen dugg ngeen dugalee seen bagage dana yàlla ma ne man am fu ma yóbbu seen bagage ma yóbbu si kër wala nga porte foo ko def mhm. mu dugal ñu si bi force ñu dugal ñu si bi waxal ci micro bi tourneel micro bi tuuti nga wax ci mhm. bi may dugal sama bagage bi amoon cantine dama ñëw dugal si place jàmm toog mhm. borom ñëw ma négocier ak moom commencé fay location. Mhm. location bi lu ma borom wax moom laa mën a fay. ñaata ngay ñaata ngay fay ci magasin bi cent mille laay fay. ak ma cent mille. yéen xaalis bi ci centre commercial bi kan ngeen di fay exactement kan ngeen di fay. bu ñu doon bu ñu doon jënd cantine bu jënd cantine nga doon versé bu ma ma tojee marché commencé defal. Mhm. da nga doon versé. chaque jour de man chaque mois da ngay versé. ñu lay jaayee cantine bi quatre millions. quatre millions waaw. boo matalee ñu marché bi dañuy waxoon lépp ci biir lay nekk. amul mhm. ci mbedd mhm. lépp ci biir lay nekk. ji ah, bi dafa mel ne waxuloo ci li nga xamante ne moom moo di micro bi da ngay ah, jàkkaarloog micro bi comme ni ma ko def nii de ce fait que ah, waxtaan bi mën a neex comme nii mhm. euh, bi li ñu waxoon lépp ci biir lay nekk bu ñu d'accord ci loolu mu ni banque mooy ne ci biti ñëpp ni waaw d'accord nañu parce banque bi ñu dina arrange commerçant yi Mhm. commerçant yi tey bu ñu amee ñaar dërëm ñett dërëm ñu mën ci denc ci banque bi suñu soxlaa mu lebal ñu mhm. mais ñu dem ba benn moment moom mu gis ne changé loolu yëpp ci waxtaan ci ñun mhm. ñoo jékki-jékki gis affaire yi changé xamuñu lan moo ko waral léegi nag nit ki boo ko mën a wutu ci biir nga jëm ci buntu marché nga ubbi nga ubbi euh, beneen concurrence ci mbedd bi mu nekk nga ne doo ubbi si biti ba pare dugg si biir tëj ko nga bi fenn ci côté. mais yéen yéen commerçant yi booba ak léegi yéen a ngi liggéey doon verser seen xaalis ngir jënd ay place ba ngeen jëndee ba pare est-ce que dañaa yëkkati benn këyit boo xamante ne dañ kaa xaatim teg ko ci seenub loxo. man da këyit joxagu yotaguma këyit am naa place nag jotaguma këyit wax dëgg yàlla. wanewu wanewul ni ab kayit woo xamante ne xaalis ba nga doon verser këyit gaa ngi nii place bi yow yaa ko moom. ah xëy na am na ñu ko jot. wax dëgg yàlla man man jotaguma. jot nga cee verser ci lu ñaata ci ay koppar man maa ngi ci ay 3 euh, millions et quelque la versé xamante ne sab moomeel la actuellement su weer deewee da ngeen di fay magasin yi wala du ngeen ko fay cent mille ngay la ñaari magasin la ñu luyee cent mille ngay fay bu dee bu dee ñeneen ñi am na ñuy fay soixante dix la kenn ku nekk la gi fan la jëm payoor bi ñi moom quantité marché bi ñu bari dañu jënd jënd bi li moom mooy mooy mooy banque bi mhm. la fi moom ak restaurant bi ci kaw mhm. loolu la tabax après jël ko. centre commercial bi ki ko moom yéen moom ngeen di fay. non non tam ngeen di a xam faam ñu jënd ay cantine comme maanaam ma yor sama xaalis ñëw jënd sama cantine. pare daal di koy luyee d' accord yéen après kooku ngeen di fay. kooku la ñuy fay. d' accord mais ba tey. cantine bi nga xamante ne nii jënd nga ko xaalis ba ba nga ko versé ba pare ka nga séqalanteel mbirum xaalis bindul benn kayit jox la. man jotaguma kayit xëy na lu matagul matalagul moo tax joxuma kayit. Mhm. même boo motalul sax nit ki dinañ def ay facture di la jox. dugal nga ni jox na ma jox na ma reçu yi ma jot jox jox na ma ay reçu. waaw bi mu mujj jox naa jotagu ma reçu waaye yeneen yi mhm. nga ay reçu parce que man dama dama jënd ci suuf dama am dama amoon problème. Mhm. man ñaari paas fu ma nekk ko doon jënd ñaari paas la doon mhm. ma dem ba ci biir ma am problème mënutuma fay. wëlti ko jaay keneen. nga mujj ko jaay keneen. moom moo ko jaay keneen. d'accord. mu ko jaayee keneen. léegi man sama xaalis mu topp ko topp ko maa ngi moom nit gi ba mu jox ma ci kaw yéegal ci kaw ne ma ne bii jox. waaw après nga mottali. Mhm. mu ngi noonu moom ki nga xamante ne nag moom moo di bailleur bi ndaxte seen teranga TV li ko fi tax moom moo di njàmbatu askan bi ku ci am sa njàmbat fii nga koy waxee waaye tamit terewut ni benn play aw pàq la waral na ba yëkkati nañ suñu téléphone portable jéem a jokkoo ak moom ba jot ko moom Ibrahima Diop moom mi nga xamante ne moom moo di bailleur bi ñu woo ko téléphone mu xamal ma ne ma problème bañ cay wax loolu lu am la waaye ginnaaw bu problème bi am na nee na dafa grippe yaramam neexul dafa sutante dañ ko koy nangul obaluñ ko suñuy bunt yor na suñu numéro de téléphone yor nañ numéroom saa bu bëggee ñëw pour teggi tuuma indi ay leeraange ci li nga xamante ne nii moom moo ñeel problème ba am ca centre commercial Soxna Waalo Mbàkke nekk ca diwaanu Padoua ibbil nañ la suñu ay buntu damay dem ci ki nga xamante ne nii moom moo di kàbbu mbay kàbbu tey lan ngeen gis comme solution ginnaaw bi nga xamante ne nii dem ngeen fi ngeen war a dem yépp gis ngeen préfet gis ngeen ki nga xamante ne ni moom moo di euh, gouverneur gisante ngeen ak imaam yi gisante ngeen ak kilifa yi ngeen war a gisanteel yépp yan plan d'action ngeen di teg ngir arrêté li nga xamante ne ni moom di supermarché ba fa war a am. waa ñun daal ginnaaw bi ñu defee loolu yëpp ba pare. def suñu conférence de presse. ñu ngi toog di déglu kilifa yi. kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo mën a àtte. dañoo bëgg ñu jog kut ko kut àtte mbir mi. ndax am na loo xam ne buñ ko seetaanee dina métti trop dina métti trop ndax man ni ma méttee am na koo xam ne nii mu ngi ci marché bi méttee nañu ko raw te am na ndaw yoo xam ne ñi ngi ci marché bi tey bu fekkoon ñun newuñ di calmer konoon histoire jog na waaye saa bu ñu waxee rek ñu ne leen noono bu ñu gaaw man mbir mi li ma ci gën a gën a métti mooy lim ne marché bi lépp ci biir la nekk moom bureau nekk ci biti. Mhm. bureau ci biti la ko ubbee ku ñëw xam ne fii bureau Ibrahima Diop la. Mhm. li nga xam ne mooy banque bi. ñu ne banque lay doon. mu jël ko def ko supermarché. ñun mu tëj ñu ci biir mooy kanaa yéen. dem leen ngeen torox. Mhm. ku ñëw na nga yem fee. waaw. boo duggee ci marché bi nag. marché bi am na barab yoo xamante ni. mën nga fi nekk téeméeri at nit du fa nit ko du fa jaay. lu ko waral. place yoo xamante ni kenn xamul lu mel nitu mhm. boo fa duggee boo taalul làmp doo gis. te amul courant. amul courant courant. lim ne mooy courant bi benn yoon la ko taal. mooy bi fa maire ñëwee di def visite. may mun a jëy depuis mu jël maire ba léegi benn yoon la fa teg tànkam moom itam. Mhm. yéen ngi fay ay taxes municipales. waaw ñu ngi dagg juuti. ñaata ngeen di dagg bëccëg. juute chaque jour juute cent cinquante mm-hmm. juute cent cinquante mm-hmm. man chaque jour dinaa dagg trois cent mm-hmm. juute mu ngi chaque jour dinaa ko dagg man bu ñu fàtte ne acte trois de la décentralisation daf fi jaar acte trois de la décentralisation yooyu boobee ba fi jaaree tamit li nga xamante ne nii moom moo di maire yi tey seeni recette la ñu am moom la ñuy defareatee li nga xamante ne nii moom moo di seenub gox kon may mën a jéey loolu dañ la koy fàttaliwaat ngir askan wi nga xamante ne nii yow yaa leen jiite. Mhm, àggalil. gis nga fi mu toll nii li ma la mën a xamal mooy marché bi problème yi ci nekk mënuñ la koy wax sax. Mhm. ndax marché bu toll ni marché Patte d'Oie ba tey koo wax mu ne marché bi ubbeeguñ ko man keroog bi préfet waxee loolu man dama yéemu. marché bi ñun biñ ci dugg amul ku ñu jox caabi. te kanam boo tabaxee bâtiment ba pare. di nga toog ne bâtiment bi lii laa ci def lii laa ci def. danañ ko inaugurer. ah Ibrahima Diop ba tey jii amul kum toogal. wala ñu def inauguration ne marché Patte d'Oie la ñuy inauguré amul. amul boobee marché kon noo koy tuddee. Mhm. Ah? seeni jafe-jafe bari na. yi si nekk mënuñ la koy wax yi si nekk li nekk ci biir yëpp buñ la ko toppoon di wax nga ne déedéet. Mhm. te benn marché bi doxut. Mhm. marché bi doxut marché bi tey bëri na loo yow da nga fay ñëw. dama fay ñëw da ngay ñëw gis client commerçant yi ñoom neen toog di waxtaan. Mhm. léegi nag nga dem marché bu toll noonu nga def ko ba pare. ah dellu jëlaat ab barab ci biti mu fay jaay. Mhm. ma wax mu def petit prix. kon loolu mooy. ñi si biir dem leen ngeen toro wala gàddu leen seen saag yi delluwaat fi ngeen nekkoon. àndaale mhm. nga euh, plan bi nga xamante ne ni moom moo di bâtiment bi nga abal ma ko tuuti rek. ma daal di koy wan suñu mbokku internet yi nga xamante ne ñoom ñoo ñuy suivre ñu mën a xam li ngeen di wax ak di ko jooy lan moo ko lan moo ko daal di wundu ndaxte nag lu ne fàng kenn du ko jeex moo ngi nii li nga xamante ne nii moom moo di plan bi gis ngeen ko ni su fekkente ne ni euh, ba dara mën nga ma kaa suumal tuuti rek nga suumal ma ko ma expliquer leen li waral problème bi problème bi mooy centre commercial baa ngi nii ñu tabax def ko R plus 1 R plus 2 la leen daal di wax actuellement mu ngi ci R plus ñaata. 3 3. mu ngi ci R plus mu ngi noonu gis ngeen fii nga xamante ne nii plan bi fii la def ne banque moo fi am mu jël fii ci kaw daal di ne leen ab restaurant moo fi am fi nga xamante ne nii restaurant la fi def ak banque moom la daal di mujjee jël def ko ab supermarché boo xamante ni man dem naa ba teg sama bët la nga xamante ne nii moom moo di affiche ba ak panneau de signalisation ba nga xamante ne moom moo fa nekk ñu daal di fay def ne ay petit prix la ñu fay jaay maanaam njëg gu yomb te commerçant ya nekk ca biir dugal seeni million ñii dugal nañ trois ñii dugal quatre millions nara toog ci ab guddi gu bër setagul loolu nag daal di nekk ab njàmbat goo xamante ne njàmbatu commerçant yi la ñu ñëw fii nga xamante ne ni moom moo di seen teraanga TV di ko fi jooyee dañ leen di jëfal ji bi di leen bàyyi ngeen wax seen kàddu gu mujj gi ngeen xamante ne jamono ji moom ngeen bëgg a ak ñi leen doon seetaan. Euh, li ñuy metti ci marché bi yaakaar naa ne wax nañ ci li ci mhm. am na yu des xëy na yu bari parce que marché bi mun naa ni tey jii ñi fi jafe-jafe yi fi dund mun ñu ko toog di ko nettal doomu aadama parce que marché bi jafe bu ne dund nañ ko fi. bi mhm. fi nekk ba fi ñëwee man maa ngi fi def naa fi vingt-quatre ans. Mhm. xam ko xam naa marché bu baax. xam nga ko. Euh, ñi fi nekkoon gennal marché bi ne ñi fi nekkoon ci gennal ci gennal gennal nit ñi kenn nekkatu fi. parce jafe-jafe lañ si mujj am. ba génn bàyyi dem marché dem. parce que amatuñu mënatuñu seen doole. attanu seen ginnaaw mun ñu fay cantine yi yàpp cantine xat na seer na boole ci ci doxul boole ci yooyu yëpp bokk ci marché ñu bëgg waa indiwaale leen teg suñu kaw. day metti loolu day metti day metti fekkee nag dañu bëgg ñu bàyyi. Mhm. seen Dakar. Mhm. mais nag yaakaar naa mhm. li ñuy woote ak premier ministre macha allah Ousmane Mm-hmm. li ñuy war ci dëkk bi mooy jub jubal mm-hmm. jubbanti mm-hmm. ci loolu yaakaar naa ñoom lañ ci xaar pour tey ji ñu ñu jubal ci seen loxo ci xam ni kat mbir mi euh, yaakaar naa ñu ñëpp Sénégal yi bu ñu tegoo ci yoon kon yëpp li ñu bëgg mën nañ ko am mais su fekkee ni day continuer di ci jaratul woon sax ñuy dex li ñu doon parce que tey ji ñi tax ñu teg leen fi mooy yoon dañuy wax li ñuy doxal yoon dañuy jubal dañuy jubal loolu lañ soxla ci réew mi réew mi ñëpp dëgg la dëgg la amul fenn amul fenn ñu di la jaajëfal bu baax a baax ji bi kàbbu ma bàyyi la nga tàggatoo ak message bu mujj bi nga xamante ne bëgg nga kaa wax autorité yi ngir ñu ñëw dimbali leen ci seen combat bi. Ah, soxna ñi lay siyaar baax a baax di jaajëfal képp ku ñuy seetaan. Mhm. message bi daal mooy ñu ngi koy lancé Bassirou Diomaye Faye. le président. Mhm. di ko lancé premier ministre Ousmane Sonko. Mm-hmm. di ko lancé képp koo xam ne daal am nga kàddu ci réew mi. Mm-hmm. Euh, di lancé message bi euh, Guy Marius Sagna nga xamante ni kooku askan wi rek ñoo ko tax a jóg. day xeexal waaw képp koo xam ne daal askan wi moo la ñor. ñu ngi lay lancé message bi nga ñëw jàppale ñu si. nu mu gën a daal ci suñ problème bi ndax problème bi daal. Mhm. man daal li mu ko mën a tuddee mooy jaay doole. Mhm. amul leneen jaay doole képp la. waaw di jaajëfal képp ku ñuy seetaan daal. Mhm. di jégalu bu baax a baax. yokk ci tuuti xam naa ni. Eh, di continuer xeex bi day continuer parce que tant que arrêté wul ñun duñu arrêté parce que li ko jaral dañu ko jaral. dina leen ko jaral parce que dafa dafa bu fekk ci gox boo xam ne ñu def fa vingt-quatre ans nga ñëw bëgg leen di déjéti dool du nekk loo xam ne lu yomb lay doon. li mu ko def ci jaay dool la ko bëgg a teg mhm. jaay dool yaakaar naa dina jeex si réew mi parce que ni ma gis sama gars yi di liggéey moom ñu ko continuer yaakaar naa kenn ku di nga am li nga bëgg mhm. jàmm rek la soxla nag soxla ñu moom loolu mu ngi noonu mu ngi noonu di leen jaajëfal bu baax a baax kàbbu di jaajëfal jibi yéen ñi nga xamante ne ñëwoon ngeen wax si li nga xamante ne tey jii ne moom moo nekk seenub naqar par rapport ak centre commercial Soxna Waalo Mbàkke bi nga xamante ne moo nekk ci diwaanu ko Patte d'Oie ginnaaw bi nga xamante ne moom bailleur ba daa dina leen di dik ne ab banque la fay indi ak restaurant dem ba ca biir daa di fay indi li nga xamante ne moom moo de ab supermarché boo xamante ne dafa nar a ñëw jaayee en gros ya toog ca biir dootuñu gisati ay client ma wecc ma loolu tamit bëgg a nekk ab gàllankoor ci seenub diggante tànk nag gouvernement bu yees dafa ñëw ne jub jubal jubbanti nañu jub te jubal te jubbantil ñii li nga xamante ne nii ab rëq-rëq woo xamante ne ñu ngi koy yëkk di ko teg seenub kaw ma Diop moom mi nga xamante ne moom moo di bailleur bi ñu ngi xaar li nga xamante ne moom moo di réaction wam une fois que mu daal di seetaan suñu interview bi di leen jaajëfal mbokk internet yu Sen Teranga TV di leen jox dig ëllëg incha allahu